Euh, moom nag mbenn jaata euh, malheureusement bokk na ci sénégalais yi nga xamee ni euh, dañoo demoon tukki ndax liggéey ba fa flang ak frontières yi ñu tëj mais terewul maa ngi waxtaan ak moom bërki démb rek ci message boo xamee ni moo ngi koy bëgg def xam naa fileeg suba dinañ leen ko tegal bu ko defee moom it mu sensibiliser ay fansam mbenn jaata nee na bu ko fekkoon Sénégal kenn du ko jiitu ci woy yi nga xamee ni artistes koy woy ngir sensibiliser ci Covid 19 bi donc Mbène Diatta woy woy wu neex woo xamee ni dama ko boole ci antivirus yi muy sélection yi nga xamee ni tous les matins euh, dama leen koy euh, proposer euh, donte ñu gi sensibiliser donte l'heure est grave donte mbir mi critique na waaye terewul de temps en temps ñu dàq stress yi def ci baax donc c'est une très belle chanson ma béggalaat ci encore alpulaar yi ak kullu koo xamee ni yaa ngi àndandoo ak ñun ci suba gi ci télévision future Média on va finir ak Mamadou Ndoye Bane mi nga xamee ni moo ñu fekk si guddi gu jot day ànd ak takk der yi moo xam gendarmerie police wala militaire yi ci euh, euh, immersion yi nga xamee ne yaa ngi koy def ñoo ngi lay nuyu Ndoye Bane euh, gërëmati la mais balaa ñuy dem Fatick j'aimerais qu'on précise que autorisation yi nga xamee ni moom la ñuy joxe actuellement enquête nañu ba xam ni kenn du ko joxe n'importe comment. non duñ ko joxe aussi n'importe qui. Mm. voilà loolu moom ñu ciy sant ci gërëm bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom ñoo di takk der yi. Mm. lu leer moo la ci moo la moo la ciy tax a jot. Mm. moo xam ci sa liggéey. wala li nga xam ne moom moo di wàllum uh, ay malade ak ñoom seen. Ah. donc uh, ñu di ciy félicité bu baax a baax ñi nga xam ñoom ñoo di uh, autorité administrative yi. Mm-hmm. comme ni nga ko waxee rek comme tournée yi ñuy def. du Ndakaaru rek la ñuy la ñuy resté. région yi tamit Sénégal waaw wër Ndakaaru ko bare bari. Mm-hmm. dinañ dellu saat sax ci banlieue bi. Mm-hmm. mais démb maa ngi woon ak waa police fële ca Mbour. bërki démb ñoo ngi woon tamit li wër Mbour. très bien xam nga soo demee ci benn dëkk benn benn commune. lii wër commune bi en général. gendarmerie moo ko yore. mais ci biir biir dëkk bi police moo ko yore. moo tax barki dem bu indi lan la lii wër lii wër mbuur. gendarmerie ñu ànd ci waa compagnie bi nga xam ne ñoom ñoo yore secteur boobu. démb ñu bi nga xam ne ñoo yor à l'intérieur euh, bi nga xam ni moom moo di sali ak biir mbuur ak commissaire lay tey nag dañ lay dañoo dañ doon dem Fatick suñ jógee Mbour dañuy dem Fatick ñu dem ba Sindia ñu daje fa ak ki nga xam noo di commandant de compagnie bi nga xam ni ñu dem ba sa euh, euh, Fatick à l'entrée de Fatick ñu daje fa ak commandant de compagnie bi nga xam ni moom moo yore li wër Fatick. Mm-hmm. ñu ànd ak moom xool ba xam ñi wër dëkk président ba ñooñu tëdd na ñoom tëdd nañu. waaw gars yi ñu ngi jaar ci mbooy gi di dawam dawuñu. Mm-hmm. su fekkee élément yi pare na mën nga koo jël waaw. nañu commandant de compagnie bu Fatick euh, def nañ lu tour war nañu dispositif beeg yooyu yëpp waaye nee na ma fii nag mooy wiiri wiiri jaari ndaari ma bëgg ko laaj ni ko lan moo tax nga tudde fii wiiri wiiri jaari ndaari. Euh, donc li tax ma ma tuddee euh, poste bi wiiri wiiri jaari ndaari parce que soo rëccee par exemple Poultok fi nga xamante ne mooy suñu premier poste mm. entre diggante caajaay ak ak pull top soo rëccee dispositif boobu nga contourne nga nga nga rëccaat dispositif bi ñu teg euh, croisement Ndios moon amul fenn mun ti jaar même boo wàccee tali bi la pour pour dem Kaolack pour dugg Fatick noo def nga jaar fi moo tax ma tuddee ko wéeri wéeri jaar ndaal. Mm-hmm. ah kon kon est-ce que fii am ñu fa jaar ñu fi jaar boobu ak léegi ñoo xam ne waaw léegi ba ñu tàmbalee opération yi ak léegi oto yi ñuy jàpp moom wax dëgg la yàlla bëri na trop. bëri na trop am na oto yu bari yoo xamante ne bu ñu demoon ci ci compagnie bi di nga fekk foofu ay oto yoo xamante ne dañu leen immobiliser depuis bu opération commencé couvre-feu bu mu commencé ak léegi. Mm-hmm. waaw soo leen leen jàppee nit ñi noo leen def chauffeur beeg client yeeg yooyu noonu naka lañ leen donc comme dañoo nekk ci euh, période euh, donc. Euh, daan corona. Mm-hmm. donc nit ñi xamal rek munoo mënoo tere lii ba pare di di favoriser li nga xamante ne mooy rassemblement yi. donc bu ñu jàppee oto donc dañuy euh, non seulement oto bi dañ koy immobiliser. oto yi euh, ñi nga xamante ne les ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ñoo nekk ci oto bi dañu leen wax carrément euh, na ñi mën nañ toog ci biir oto bi. Mhm. ñi bëgg wàcc aussi mën nañu wàcc. Mhm. mais oto bi après ba ba six heures du matin. Mhm. Euh, ñu ko au niveau la compagnie pour ñu mën ko immobiliser. waaw population bi nag gis nañ ni bañ da commencé ànd ba léegi tasewuñu benn nit. daanaka presque oto yi sax mën nañu wax ni ñi am autorisation rek la ñuy rombatel te bariwuñu matuñu ñaar wala ñett. mais gisuñu benn nit ana nit ñi. ni ah, nit ñi wax dëgg yàlla premier jour yi la ñu amoon a problème ak ni ñi mais avec la la la la la la sensibilisation te aussi euh, xool nañu gis nañu aussi jumtukaay ak taxawaay bu ñuy taxaw euh, moo tax vraiment depuis lors premier jour la amoon problème ak nit ñi parce dañu doon lu bëri. Hmm. mais léegi nit ñi dem nañu ba comprendre te xam nañu aussi feebar bi du affaire caaxaan la. waaw moo tax vraiment dañuy respecté couvre-feu bi. Hmm. boo xool boo seetee sax dès 19 heures da nga gis nit ñi dañuy waaxu kenn ku ne day waaxu pour mën a ñibbi yegg waaw que ñoom euh, ñu ngi respecté deux heures de temps yi ci des may naa ko gouvernement bi ah, xale yi dañuy teel a fatu léegi ah, léegi looloo xew teel a fatu ne heure bi ci des may naa ko gouvernement bi noonu la tooñee su fekkee da bëgg jàmm bëgg ah. dimbali nit ñi kenn ku ci nekk war na góorgóorlu ba ni ah man de feebar bi du jaar ci man pour di wàll keneen su ku nekk defee noonu rek incha allah yaakaar naa ne affaire bi dina faju mais Baye Cheikh ñun état mi ngi def li ko war mhm. ñun presse bi mhm. ñi ngi def Eh, dafa mel ni da nga ko fay waaw. waaw hmm. population bi. Hmm. ñun ñëpp ngi def kenn ku nekk yaa ngi def la la war. mais population bi dafa da ci am ñoo xam daal. Hmm. Baye Cheikh. waaw da ci am ñoo xam ni parce que majeure partie askan wi dafa am solo Baye Cheikh. garage yi. garage yu taxi yi. garage yu mécanicien yi marché yi. te boppam nit ñi gannaaw tëjee guñu loolu lépp. nit ñi di xool nu ñuy def pour war di gën di moytu. yëngatu euh, xam nga maa ngi la fi doon wax temps passé naan la Kër Massar bomb nga fa yaa mais xam nga rek comme ni nga koy waxee soo waxee ñu ni ay wax ji rëy na mais après quelque temps après dañuy gis ni démb ci guddi rek am na benn waay bu ma woo ni ma man de kii ma dëkkal maa ngi dëkk premier mais ki nekk deuxième jëkkëram da koo wàll te jabar ji jël si nañ ko léegi ah. te ñun ñi dañ nekkoon en contact ak jabar ji ak ñoom seen ah, il faut ñu jël si ñoom ñu nga tiit jaxasoo jarul tiit voilà man leen feebar la boo xamante ni boo ko annoncé dañ lay faj dañ lay jël si yóbbu la faj la beneen bi mooy hmm? Louga am na kuñ fa téye que ni daf ko am hmm. kooku nee neen dafa am ñetti jabar hmm. ña nga xam ne ñoom la nekkoon en contact ñu ci bari dañ leen di téye am fu leen denc. Mhm. ñooña fan leen denc nit ñi doo leen jël rek nag dugal leen ci biir kër doo leen jox lekk doo jox naan doo leen dara. Mhm. ña fa ne Louga ñen ñu nekk en mettre en quarantaine. Mhm. jamono jii may wax dañoo sonn. Ah. démb reeruñu. Ah tey jii ba bi may toog fii nii. ndekkiwuñu mm. maa ngi doon jokkoog ñoom nee neen dañoo sonn su fekkee autorité yi ñu ngi koy dégg ñu jëm leen a taxawu parce que euh, di jéem a dindi jàngoor ba yokk leen ay jàngoor tamit euh, day day day indi ay ay problème bàyyi seex voilà tout cas ñoom ñëpp ñu ngi leen di xalaat euh, mm-hmm. donc famille yu plus de vingt neuf personnes ñu mettre leen en quarantaine foofu ca euh, Louga. Mm-hmm. Euh, di ay décision yoo xam ne ni gën na nañu yokk pouvoiru gouverneur yeeg préfet yi c'est bien ñoom dootuñu xaar bu kaa amee wala problème di woote Dakar wala woote ministre k ñoom seen ñoom ñooy jëlal seen bopp ay décision et c'est très intéressant li ciy toftalu kay. Mm. mooy mesure d'accompagnement yi lekk gu baax geeg mm. dimbali leen taxawu leen parce du gàcce de du gàcce maa ngi koy wax démb. voilà giraas yi kenn giraas yi ak sunu waa ji nu mu tuddati. Euh, Bakary Bakary Cissé kenn gënu leen ci réew mi. Mm-hmm. te bañu feebaree dañoo taxaw jël seen responsabilité man lii ma dal donc loolu du gàcca feebar nga demal ñu faj la nga wér delluwaat sa njaboot mais et puis nit ñi nga xam ne di loolu dalagu leen nañu bàyyi kër gu mu kër guñ ko gis rek ñooñu ñu commencé di leen daw di leen mooy non non jàppale leen jàppale leen moom ci boppam moom mooy tax yow sa bopp mbir mi bañ laay dal bàyyi xam nga wax ju sew jeeg mhm. dawante bi mhm. Sénégal faut qu'on arrête faut restons restons Ndoye Bane ñu ngi lay gërëm bu baax euh, daañu delluwaat Fatick euh, demaat euh, ci dëkk yi nga xamante ni d'habitude Dakar rek la ñuy yem mais on dañu continuer enquête bi. waaw hmm. suba suba di ngeen lay indil biir Fatick. biir Fatick d'accord dëkku président Macky Sall. président romb naa buntu kër président. xool ndax tëdd nañu waaye gis naa. mbaa tëdd nañu rek. <laughs> allah suba dinañ leen ko génnal ñu ànd ceeg la police bi nekk foofu. ñu wax dëgg yàlla waa dëkk boobu yëpp fàttu nañu mais daal oto yi daal yi nga xam ne ñooy jóge ay Kaolack di jóge ay Fatick di jóge ay Mbour di jéem a ñëw Ndakaaru ñoom ñoo nekkoon seen ma benn affaire tamit mhm. euh, kaaru Njaga Njaay yooyu ñu gisoon mhm. ci internet bi ñu naan dañu dañu dañu maanaam dañoo yàpp ba fees kaar yooyu uh-huh. ci benn tool ay maire la ñuy liggéey ci benn tool foofu ci àll bi ah. kaar yooyu defatul sax euh, euh, kenn duyatu ko moom fet dix-sept personnes ñooy nekk ci kaar bu nekk mhm. te démb bi ñu ko nit ñi bi affaire bi dawee ci réseaux sociaux yi gendarmerie dem nañ fa. Mm-hmm. ñun ñi dem nañ fa gis nañu ab tool tool la boo xam ne ay femmes ñoo fay nekk. Mm-hmm. moo tax information bu wàcc rek dañ cee war a dal. nañ bañ ci ëppal nañ ci dal surtout réseaux sociaux du informé woo ci réseaux sociaux yi. dëgg la day dem a la source. dëgg la ba mu lijjanti ko ba mu leer naññ. bu koy doog a jox jox askan wi. bëgg naa itam nga enquêtal ñu ci ñooñee ñu dégg euh, euh, ñu dëkk ay boori kayaar ci tefes gi guddi gi dañuy taali pono. di xaar ay gaal yuy ñëw il paraît di indi ay nit yu feebar euh, loolu itam daf ñoo leerul. ce serait bien que que que. loolu loolu que nga éclairciral ñu ci suba sama papa mi nga xamante moom yoonam nekkul ci sama métier woon ma démb naan sama benn xarit foofu ñu dëkkee foofu noonu am na bi xaaju guddi ñu ngi yeb ay nit di leen jëlee ci dëkk te xam naa dañoo feebar ma ne ko sa yoon nekku ci toogal nga seetaan télé bi nga bàyyi ma ma enquête léegi nag dénk naa la enquête léegi enquête bi fekk fekk nga fekk fekk fekk nga di ci mhm. ndaxte keroog àndoon nañu waa ak waa gendarmerie bu Mbour compagnie bu Mbour ñoom jaar nañ pëppo ngeen jaar nañu seen jaar ci petite côte bi yooyu yëpp mhm. mais information bi benn euh, rumeur la buy circuler rek démb ci guddi fii ci euh, quai de bu yoof mhm. dem nañ fa mhm. man mii dem naa ba egg ca quai de ba mhm. mais am na benn gaal koo xam ne teer na fa mais gaal ga ba ma fa teere ay pêcheur yu dëkk ca gox ba ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom ñoo ñoo demoon ñoo demoon euh, géej ba ñibbisi bi bi ñu ñibbisi nag gendarmerie bi mu ko yëgee ci la fa gendarmerie dem arrêté leen téye leen ba ma fay ngi leen doon xool di def maanaam di def daal liggéey ba la ca donc c'est pas à la population ñoo war seen loi non non non bu kenn defaral sa bopp loi su ñu déggee euh, comme li ngay dégg ci Petite Côte bi askan wa génnoon nañu taal ay pneu di xaar gaal gi mm-hmm. rumeur la boo xam mi ngi doon circuler partout mm-hmm. mais ba léegi kenn waxagu ni la maa gis gi mm-hmm. ñaari lii ci nit ñoo ci nekk rumeur la rek buy circuler mais bi doon dégg dem nag ci quai de pêche yu Yoff bi ay pêcheurs la yu demoon pêche ba retourné ba ma fay jógee xibaar boobu laa fa bàyyi voilà merci en tout cas defe naa fi la jaaree jeexal euh, yeewu leen bi